Salam alaikum, salam alaikum de l'Enadia. Si afki wezu, brina afki si marqué, musique Sénégal. Wa ni on lol afki si marqué, industrie bi ku melni Miyagise. Miyagise nak yu bari dañ ko nawlo. Rien que par son talent, de nek ko de dafa imposer bopom, si musique bi. Ba ken mulu ko si dindi. Tek si courage am dafa inspirer ñu bari. Rupture difficile bu wax no face ak anam bu mu relancer carrière Ba jamono ji mo nek si kaw charti. Clibom mi day atteindre des chiffres folles. Comme Clibom la vie est belle. Day and may shine.

While cependant de Farnbinius sorry, Tesu Eitul din antace carieră. Dicovola e mai colaborare un bun de alonaz bet bene société de paris sportif en ligne. bu Bun lango représente comme ambassadeur. L'ononac diamoli di monk individual d'outri, internet ignoré accusé de faire promouvoir et pari sportif en ligne. Eu inde élection di indi ay jafé jafé. ci baye xel way pari sportif lu meilleur sa diamoni di. Ken xamone non tol. Indi na fi ay décolosage scolaire. Ño na leen dak sen prove liggéey kay am ñoo xam de leen tej kaso. Dama yew suba tel léegi sama mburu moy pari foot bi mburu ndekki bi pari foot bi la Fi ak duguma jouer mo ben ticket man du am jàmm wallahi lal azim Li mo ngi gagne jeunesse bi. da ngay jouer di perte Nar bi sa xaalis bo yor def ko ci pari foot bi dama joué jouer jouer jouer bo sonn musuma japp. Jouer na jouer jouer bo sonn musuma japp. yedd nañ ma lu ne lañ ma wax sama xaalisu ndekki dama koy téye wara a ndekki xëy jubali pari foot ba Jouer perte maire bi sax di joué mu ne ma ah yow sama dom sonn nga. kañ ngay jàpp ma ne ko sonn naa de maire maire maire yàlla dina baax benn jour dina mos a ñëw ma jàpp. depuis boobu ba léegi xaw ma man naar bi daf ma pikir xaw ma lan la damay gérer di perte looloo muy yéem mosuma see gañ bu laa mos a gañe benn 3000 ma foog ne yoo lu may def noonu la ma ñaar naar bi ne ma ko rag daw amul foofu ngay toog noonu laa ko ko joxee billaahi. léegi da nga fas garab boo xamante dañ la koy pikir nga bàyyi damay jël.

mi voir acte yimelni collaboration bi en lonas bet antasena lili image miyagise la ngeen xalaat ci miyagise ndax artiste war naa collaborer ay société yoo xamante ne si ni ñuy gagné xaalis yaakaar na aduna ñu baree bari ou bien ñi ñi ñoo soof rek di ko critiquer jox leen ñu seen xalaat à travers le commentaire bu leen fàttee abonné wu laasi benn pouce bleu si ce ñoo ngi waxante ba beneen voilà bon ok bye bye <laughs>